àdduna di nuyu Sénégal àdduna wërngal këpp di sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Mohamed sangu-sang yi di nuyu képp koo xamante ni rek eh, ñi ngi eh, bàyyi xel eh, site bu mag bi di Sénégal seet ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen jiyaa di leen déwénati ci koor gi di leen baalu àq bu baax a baax di leen wax baal leen ñu àq baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole jéggal ñu fekk ko ay at yu baree baree baree bari tey nag boo leen gisee daba ceena moom sëriñ Saliou ah daa seet leen rek ak soxna Aida mu Serigne Saliou mu daal di nuyoog mbokk internet Sénégal 7 yi koy seetaan yaay booy nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum àdduna wërngal képp di wax alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alaatu wasalaam di ñaanal suñuy waajur waaye ñaanal suñu sang bu tedd ba Serigne Saliou yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal waa Sénégal 7 di ñaanal chaîne yow moom alali Serigne Saliou nga. te kër gi kër Serigne Saliou la. <laughs> kon boo leen ñëwee ci soxna Aida Saliou. Mhm. c'est di balu àq ñëpp nag. Mhm. ci weeru koor bi di baal ñëpp àq tamit. Mhm. ñaanal kilifa diina ak kilifa aada. yal nañ fi yàlla bàyyil mag ñu baax ñi. allahuma amin yaay booy <laughs> wallaay eh, kontaan nañ bu baax a baax ah, tey nag ñu seet si woon la ah, ci weeru koor wi waaye nag ñu seet si la ah, pour daal di am ak yow waxtaan yaay ba mu mel ni da ngaa xaw ragal koor ni nga kiiwee nii daa mel ni koor gi da ko ragal. non ragaluma koor. man ah. parce que <laughs> man su ma dee gis lekk sax su ma gisee nit ñi di lekk damay suur. ndeysaan. man ragaluma koor. Mhm. damay xalaat rek. ndeysaan. noo <laughs> tax <laughs> wala jàpp eh, eh, xëdd bi nag nu muy demee. faamaa koy kii wala. yaa yaa parce que man bu ma xasee ma ndogu. ñun dañuy man ngoon gi laay liggéey bu ñu dogee ba pare rek. may continuer liggéey. diaspora bi maa ñoom heure boobu ñooy nekk. ba quatre heures et demie. Mm-hmm. xam nga ma nekk ci liggéey bi su ma paree daal di julli tëdd. naa ndox rek naan café tëdd. naan tëdd. <laughs> kon yaa yow dañuy guddee sakal yi kon <laughs> du la summi. <laughs> Eh, yaay ñu gis élection présidentielle yi. Euh, daanaka mu ñëw euh, ñu gis euh, mu xaw a am tuuti violence te mu mel ni da ko waxoon ci say biir yi wax naka nga gisee élection yi. waa élection yi lii ma ci gis yëpp dafa mel ni waxoon naa ko de ci suma juumul ci li yàlla di dogal xam nga yàlla mooy sàkk ay jaamam ma def ma may soxna Aida moom Serigne Saliou leen rek laa dul def nag mooy lii xew ci réew mi wax dangay wax fulla bu noppi jotee nga nopp bu wax fulla jotaatee nga génn wax fulla parce que ku ay nit di jënd connexion di la déglu nga doon dara cim réew observatara doon dara lépp looy wax war nga cee sóoraale ñett ñi sa njaboot mag ñi ndaw ñi am dégg-dégg ak boroom xalaat yu rafet yi ak ñi bëgg seen réew ëllëg mais doo waxee ci fitna doo waxee ci mer te mën nga wax ñu déglu ma tam man dañ may déglu nag bu baax a baax a baax élection yi li ma leen waxoon rek dañu woon dëkk bi day tàkk man leen dëkk bi du tàkk ñi koy taal ñooy tàkk ba jeex waaye dëkk bi du tàkk ñi koy taal ñooy tàkk ba jeex. waaw ku ci nar indi fitna yow yaay am fitna ba lor sa bopp waaye dëkk bi mag ñu baax ñu am réew mi sëñ mu taxaa yeewu. Mhm. sëñ Touba fi maam El Hadj nekkoon fi sëñ Saliou nekkoon fi. Mhm. Baye Niass nekk fi Baye Laay nekk fi réew moom lan moo koy taal. réew moomu lu mu am amut loolu réew mi yiy tàkk yépp ñun li nu am ca ñooña la ñooña amut. réew nag day am buntu day am kilifa. waaye boo bëggee tëj réew mi ne réew mi du am kilifa nit ñi moom ñi bëgg am kilifa dinañ am kilifa te ñi ëpp kilifa ñoo ëpp ñi ñàkk kilifa. dëgg la réew moo wax ne da nga teggi sëñ Mountakha. Mm-hmm. da nga fiy teggi sëñ May Mansour da nga fiy teggi Baye Niass da nga njabootu. Uh, maam li maam non non non da ngay sonn rek mais doo am dara. Ah. <laughs> yaay booy ñu gis campagne bi ni mu déroulé. campagne bi ni mu déroulé ñu gis ni yeex na commencé et tout ak euh, naka nga gisee campagne bi. sant yàlla rek julli ci yonent bi ak rafet njot lool ci sama leader. kuy sa leader. man musuma politique. 2024 la volontaire dugg ci politique ndax 2021 laa dégg ñuy ŋàññi sunuy sëriñ 2024 laa gis. ñu bëgg a yàpp suñu sëriñ 2024 laa gis ñuy teggi aw euh, war ma mag ñi 2024 laa gis violence 2024 laa gis kenn xamatul kan mooy kan ku la neex nga xañ nga nga nga ŋàññi ko wax ko lu la neex teg ci moom ay kàddu surtout ma kilifa diine yi ndax man sëñ Tuubaa laa am nii ma mel sëriñ Tuubaa ma ko def képp ku bëgg ci réew mi jàmm soxna Aida Saliou nga jot ci ci ci li ko fi yàlla def ndax damaa judd doon ki ma doon nit nag mën nga doon lu ne ci sam réew te duñ ko xam. Mhm. ma volontaire nag ne lii ma gis damay seet ki am war may kilifa yi ma jox ko bopp. muy kan Amadou Ba. jox ko bopp ba pare nag ak discipline jox ko bopp ba pare ak pat jox ko bopp ak fulla ak fayda ak jom fas yéene ko ànd ak moom di ñaan yàlla mi nga xam dara tëwu ko di ko ñaan sama sanga ba Serigne Saliou waaye yow dañoo gis jomaay sonko bi sonko jomaay bi du toj réew mi lan moo tax nga préféré Amadou Ba. loolu fawum xale la. lan mooy fawum xale. jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay. Hmm. loolu fawum xale la rek. yaay loolu nga foog. Ah, loolu la kay. jomaay sonko mais imagine euh, fii lañ koy waxee ci Sénégal 7 ñu bàyyi ci xel nag tey la lan. jeudi tey la jeudi. suba la vendredi le 23 le 22. tey la le vingt et un mhm. mars mhm. deux mille vingt quatre incha allah dimanche la la vote bi sama anniversaire man la vingt trois la man buñ ñu nee suba la vote bu ñu bi samedi man ci la ci la ci la ci la sama anniversaire mhm. ma wëlbati ko def ko rendre hommage jaaga ak amital mi nga xam ni su ma mësa moo ma njëkk a génneel xalaat ni ma jaaga nga war a sargal noteel li ma la wax man ñooñu laa ci rendre hommage ak képp koo xam yaa ngi ci suuf ñooñu laa ci rendre hommage ñëpp mais maa ngi lay wax leen nga bind ko wure yuux dina jëpp ko foogee wut Ba ànd ak benn xale buy ma maa ngi gis euh, paa yu ñàkk kilifa ay paa yu ñàkk kilifa yu perte ñàkk fayda amuñu lenn lu ñu choisir seen réew naan ay di wax ju ñàkk fayda ju matadi joo xam ne man kenn duma foog foofu jigéen laa de waaye dinaa leen dóor ba toog ci seen kaw yaay liy na dinaa leen boole ñoom ñëpp ci benn pot dóor leen ba ñuy bëgg a dee toog ci seen kaw te amadu Ba laay jox laay ab jaay jël karawaas bi xiir gi ne ko abal ma xiir gi mu abal ma xiir gi ma caw leen dóor leen ba ñuy bëgg di toog ci seen kaw te nii laa koy defee silence te uma seen jot. da ngay campagne wala yaay li nga wax campagne ñu ma man campagne naa parce que fu amadu Ba dem rek topp naa ko. te maa ngi lay waatal ci yonent bi barke Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Saliou mi nekk ci sama dënn jàppale gi may jàppale Amadou Ba gisuma Amadou Ba gisuma ku bokk ci Amadou Ba kenn joxuma ay moyens kenn joxuma cent francs kenn joxuma fukki dërëm mais soutenir sama réew bala muy dugg ci kuuta dimbali sama ndaw yi réew ndax man maa objet doon maman national fu mu dem nag fekk naa ko fa toog naa ci podium ba fekk ko fa soutenir ko te yàlla tax te bugguma xam Amadou Ba xam man su ma la dee jàppale bëgg sama réew bokk na su ma xamee ne lii sama intérêt réew la. Mhm. su ma lay bëgg du ma ci xaar benn intérêt personnel. waaye yaay sa ndaw réew choisir nañ de. sama ndawi réew. te jomaay sonko lañ choisir. sonko jomaay wax loolu xam nga lan laa mën a dégg. Mm. mooy ñun danoo yor ay ndaw yor ay xale. ñu bëgg nag am po. ñu bëgg nag am fo ak buzz li ñuy wax buzz xale yi dañoo bëgg. Sénégal ku ko xam-xam ne kankurang sax bu génnee ñëppay topp kankurang bi man ñooñu ay kankurang laa leen tuddee. ay kankurang kankurang kankurang bu génnee li xale yu génn. parce que lu ñuy nam a gis la dañoo nam ma gis ponkal mu taxaw di wax lu amul fayda amul fulla amul personnalité. yaa ngi tooñ kankurang jaaroo ci benn objet. travail wala lenn ci sa réew xamoo bilan bi nga Sénégal du benn appartement du studio Sénégal je suis la. nekk ci ay lieu yu wóor fulaa koy téye jom a koy téye waaye bopp bu am dara daraa koy téye man sama kër gii ma toog su ma ko munta téye du ma mën a téye buntu kër gi mille femmes ñoo topp sama ginnaaw ma yor keppaaru soxna ay de Saliou di ci def social te musuma fëgg état barki yonent yàlla Muhammad billahi wallahi tàllahi musuma toog ak jabaru Amadou Ba musuma toog ak Amadou Ba musuma toog ak kenn Pape Thiam mii nekk inspecteur de impo di doomu Jurbel mhm. bëgg réewam taxaw jege ma ma xam ni dafay jàppale Amadou Ba ma ànd ak moom jàppale Amadou Ba te xaaruma ci 1000 francs dangaa bëgg a wax ni jomaay boppam dara nekku ci eh, eh, ma eh, mais lan la fi wax lan ami waaye te ma ah, ba sàcc bi ku leen doy yaay sàcc bi sa dee ba xale nga ne ko kuy sàcc mu la yaay sàcc bi xam nga ne yooyu xale lan nga duggal seen bopp parce que ci way nga leen woo ak fo wayum koor la moom wayu koor lay way hmm. wayu koor wayu dàqu koor moom a xale dañu ànd dàqu koor rek Amadou gisoo fu mu taxaw gone taxaw fa ay mag ñoo fay taxaw ay mag la àndal ay mag la soutenir te buñ demee ba carte yi jot voté jot dinañu xam ni cin bokkul safin gone guy fo ak mag muy liggéey am yow yow yow xoolal xoolal Amadou bu la nee jàkk nga xool ci Amadou rek nga xool xam ni kii euh, responsable de état la gëm na am na lu mu portel Sénégal suba suba bu ñu ko joxoon ay milliards kii buñ jomaay bu ñu ko joxee milliards signature bi da koy juutal. yaay li ngay wax day juutal signature bi soxna Aida li wax xam nga ko. man maa la wax li bu wërëwee ka ngee ba ñu dum mooy ba jàkkaarloo. ba askanu jàkkaarloo jot jot na de yaay. jot jot na te ni ngeen ni ngeen ni ngeen fagaroo noonu. noonu la pastef fagaroo xam nga dégg nga dégg nga ku bokk ci jomaay nee na moom. bu jomaay gañe wul nañ ko mayee mu sëy mais man maay bàjjanam te duma ko mën a yóbbu mu sëy xam naa ay mardi yooyu laa koy mën a yóbbu bu dee gis naa sax ku koy takk. xalaatoo deuxième tour dinañ fa dem. parce que gis naa ci réew mi ñu naan ay ku leen mayee ñu sëy bu bu bu Amadou Ba gañee dinañ leen mayee ñu sëy. yaa ngi xalaat yaa ngi xalaat deuxième tour. deuxième tour bu ñëwee mu gën a neex bu premier tour ñëwee mu gën a neex. ñi mm. ngi koy yalwaan yàlla ndax ndam ci loxoy sunu borom la ne. ah loolu laa bëgg nag. dama ne man mm-hmm. man Aïda Saliou. Mm-hmm. sama lépp ci yàlla moo tax gis nga commentaire yi coow li bari coowu ma mais dama bëgg sénégalais yow parce que man su ma demee ba gis kuy teg plan Sénégal war a am discours booy teg ci Sénégal te boole woo ci sëñ Mountakha boo ko boole woo ci waa kër El Hadj Malick ci waa kër Baye Laye kooku bëgguma la. doo suñu intérêt personnel parce que ñun ku ñu xam-xam ni dafa am lu ñu tënk ba nu juddoo ba léegi Sénégal di dox mag ñu baax ñi bu nawet bi ñëwee inondation yi ñëw ñu jaaxle tiit ñun dañuy ñaan sëriñ si yàlla ba bu bëggee daf noo defal Sénégal bu mucc ayib. Sénégal bu am mucc Sénégal bu am daraja Sénégal bu am responsable waaye Sénégal bu am kilifa. lan nga gis eh, ci li nga xamante ni moom mooy sarax wala lan li ñu war a génne fii ak dimanche. loolu su ma koy génne du lu may nekk di ko wax ay médias. Ah, mais yaay ba ba ba Sénégal waree fubali da nga ne woon nañ jëm uh-huh. fa laa jëm saa yu réew mi ma saana tàng. kat yii di tàlleku di wax waxuñu de ñoom maanaam euh, média la ñuy xool wala lu leen fësal. ay na Saliou. dafay liggéey ci ay sarax ci réewam di jënd ay nagam di ko rey ay propre moyen parce réew mi am jàmm parce que maman nationale politique da ko fee fekk nee naa la état man bi ma juddóog léegi Senghor Senghor dama koo fekk muy tàggatoo man bi ma juddoo damaa fekk Senghor di ko tàggatoo Abdou Diouf ma fekke ko fekke Ablaye Wade fekke Macky sàll te ba léegi maa ngi def te président bu ñëw fi nga may fekk te booy dem da nga ma fi bàyyi waaye su ma demee ba gis benn leader homme politique boo xam ne bu faloo fi la lay sekk te ñan nga yàlla mu folleeku bàyyi fi say doom man ma objet sama doom ëllëg taxaw yor senegal doon dara Sénégal man du ma taxaw di ŋàññi sama kilifa diine ndaan kon ma xaj sama yoon. pour lan nan moo ko fi jar. lu fi ñor ba koy màcc. waaye waaye état munul état da lay fekk ci sa réew. dimbali la soutenir sa réew. mais état munul fekk sa réew di xañ sa kilifa diine. léegi kooku mais mais am na ñoo xam dañu leen a war a tiire bal ñu dee quoi. yaa wax lii barke sëriñ Bamba waa léegi ku sëñ Bamba def mi nga mel sëñ Bamba jaay la ba nga jar suukar sa kafe ba ku xool naw la ba nu mën laa seetaan ci jàmbaari xàmme la ràññe la man nii man ay man Aïda Saliou sëriñ Saliou ma ko def man sëriñ Saliou ma def nii ma mel defuma ko état defuma ko gouvernement defuma ko sëriñ Saliou wa suukar sama kafe ginnaaw bi ma jógee ci samay waajur ñu làqu gisuma wéttal gisuma ku ma xool man sëriñ Touba laa dëgmal sëñ Touba nappi na ci man lu ma am sëñ Touba laa koy jox lu ku bëgg sëñ Touba ma bëgg la ku wéttali sëñ Touba ma wéttali la ku dox ci ndigalu sëñ Touba ma wéttali la ku doxul ci ndigalu sëñ Touba bëgguma la sa tarxiya des na sa diina des na barke Serigne Bamba Mbàkke man ba ma demee ci yonent bi di ko ziyaare Waly Seck wan ma yonent bi ba ma demee dama ko ne wuy sama ndey gis naa yone gis naa jëwriñu sëñ Bamba ndax man damaa yaakaar ne sëñ Bamba benn jëwriñ rek la am muy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma ko ne jàkk dama ne woy gis naa gis naa jëwriñu sëñ Bamba tey rek laa gis jëwriñu sëñ Bamba bi ma demee di ziyaare ji béy ci laay xaram kon nañ delloowaat xel yi lan moo fi ñor ba nu koy màcc sarax bi yaay sarax bi dañu koy wax waaw kay na ndox mi bari te sedd na ndox mi na ndox mi bari te sedd juróom-ñaari mbuusu soowi na bari ku mën a togg ñam génneel mais jàmm rek ay am de barke sëñ bamba yee nañ luy nelaw dina ñu xam ne ku dëgmal sëñ bamba dëgmal alaaji malik dëgmal baay ñas dëgmal baay laay doo nuroog ku dëgmalul kenn fii la ñuy xamee carte gi tey na leer ndaw ñi dañoo bëgg sëñ bamba sëñ Saliou lu jébbalu ci ginnaawam mu ëpp lu jébbalu bi mu fi nekkee. da nga fee joxe woon saraxu ndel taw li bari sëriñ bamba Mbakke. loo ci gis sarax bu lan nga ci gis Aïda Saliou waxandoowul ak kenn man nee naa la sëñ bamba daan noppi ci man. moo ma préparé ba ma jag defar ma ba ma noppi mu teg ma jaay ma ma jar li ma ba barki sëñ Bamba bu kuréel bi wërëngul woon ba réew mi dem ba desul lu dul benn ay des saal dellu ja dellu dellu dellu làqu jamono dellu siwaat jamono buñ ma ne këpp këppal loo bëgg a doon ma ne taalibe seexul xaddim taalibe sëriñ Saaliw man kii laa bëgg a doon. sarax bi nga ne ndox la ak na ñam yu bari. ak soow. na ndox mi bari nañ ko génne ku mën a togg togg joxe. ay ca yaay dañuy dugaat dañuy dugaat ci li nga xamante ne nii rek mooy mooy sa yaram tàng na fi ñuy dugaat mooy euh, euh, ci sa doom sumbulu. ndax ku ne xam na ni série bete bete mi ngi def defee falaam waaye nag sumbulu waxoon ci ñooy ñooy wax yoo xamante ni nii euh, nit ñi kat ñi ñu ngi koy ŋàññ ñu ne ñu woo daat kàddu yi bu baax a baax a baax ku ne di wax te ku ne xam na ni sumbulu sa doom la lan nga ñu mën a wax ci ci day yeete rek sumbulu deful dara dafa yeete rek li xew ci kër yi rek la wax sumbulu ndawi réew mi la sumbulu xaritu ñeeñoo yi la xaritu géer ñi la xaritu ñëpp la day yeete rek mooy li ma lay wax nii rek nit mën ngaa def bon exemple bu rafet waaye yéen boo leen ŋàññee waxi sumbulu kon noo leen di war a def ñi ŋàññi së sëñ mu taxaa ak kilifa diine yi nañ débat ci loolu fi mu ne débat boo xew waxi sumbalu jeex na ndax sumbulu ba mu waxee bañ duggee ba ci biir xam na ne nangul na ko ndax takkal na ko ngalam tamay nañ ko doomam te tagg na ko gërëm na ko sumbul dafa yeete rek ni ñee la wax rek. waaye Sénégal da leen a menacé ni bu ñu arrêté wul wax yu vulgaire yi dañuy arrêté série bi sénégalais yëpp ni nañ ko arrêté. waaw ba tey buñ ko arrêté rek ñu xàccaat leneen suñ borom am na lépp li yoon wax moom mënuma cee wax dara ndax yoon a ñu fi nekkal ndax ku jaaxle fa nga jëm waxi yoon moom du ma ci dugg ak waxi état ak wax kilifa diine ñett ñi rek laa ragal ci sama àdduna waaw. yaa ngi buñ tegee kenn warut a teg. yaa ngi suivre série bi. man nag li may suivre tele bëriwul parce que damay julli te damay nekk ci sama liggéey te aussi tamit yenn saa yi du ma am temps bi. ak sociale bi may def ak déglu sénégalais yi ak porte à porte pour yee sénégalais yi ci vote bi ñu vote ci jàmm xam na la ñuy soutenir damaa jaboot waaye waxi ñeeñoo ak waxi géwal dafay jóge woon yàgg na amul ndax bàmmeelu géwal ak bàmmeelu ñeeñoo amul bàmmeelu géer ak bala may sa amut bàmmeelu tukkulóor ak pël fuuta amut loolu waxin la parce que technologique moo dox kenn ku ne di yeete fi nga mën ndax maa ngi nii tey musuma politique man politique benn benn benn gouvernement rek laa amoon muy gouvernement Serigne Bamba ak gouvernement jox ko ndigal wéyee ay ndigal bàyyi tere te tey gis nga bi ma volontaire ndax lan dañoo xeeb suñu sëriñ si bëgg leen soo soofantal te duma ko nangu ma volontaire dugg te nag maa ngi ñaan ci barke yonente bi bu dee ba am ndam ci barki seexul xaddim waa Sonko yaa ngi lay dégg de. nañ ma dégg man na ma tuuma man murit laa je suis taalibi Serigne Saliou wax a jot rek ma wax waaye bu wax jotul du ma wax man saa yi ma waxee wax a jot. sañ sañ tëj nañu. sañ sañ ngay waxee day tëj lépp day jeex. sañ sañ tëj wax ak sañ sañ ngay waxee de yaay ci réew mi may maman. bu ñu toogee ba dimanche man ku fi làng te boole woo ma ci du neex Serigne Bamba xam na loolu Amadou ma nag man maa objet na mu def sama sëñ mu taxaa ak na mu toog ak moom toogaay bu rafet ba ak na mu joxee sëriñ si seen wàcc mais yaay nag fi mu ne fii ku fi toog dem ci sëriñ si ñëpp a jox sëriñ si seen wàcc waay ñëpp man yaay démb seetaan nga Mbàkke ma ne Mbàkke toj na démb ma ne jomaay fii ku fi woote dama xanaa déggoo ma de li ma la dafa leer de Aïda Saliou mi am na ñu ko bëgg te taalibe kepp dong la rek du ko weesu du ko ëpp nit ñi danoo sonn ci koor gi ku leen woo ñu dàqi koor lii rek la li si des nañu ko muñ mi ngi ñaan yàlla sunu borom mi yor ndam te di ko joxe ak yonent bi ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan mu tegal ñu ko ci loxo mag ñu baax ñi joxal ñu ko Amadou Ba ba lëndi ñu ne viw Amadou Ba ñu ngi koy ñaan ndax ay jullit lañu. <laughs> ok ay ay wooy kàddu yi eh, rafet na waaye dañuy ñëw rek ci sa doom Wally Seck. ñu gis laaj nga ku baax ñu gis son bi mu génne yàggul dara. def naa ne ñun ñoo ci ñi ñoo ciy sit bi ci njëkk a toog ak yow di ci wax euh, way wu day wa yaram ku ko déglu sa rongañ dal ci sa dënn da ko wóolu da ko yéene mu bàyyi ba mu dem rek ngay jooy yaay way waali wi lan lan lan nga ciy jàngat. dara wax na ko bu siti daggee deret wax ji tënk na boppam lii rek laa lay tontu bu siti daggee deret yàlla baax na yàlla na ko yàlla sàmm sàmm njabootam sàmm ku ko wër ak estafam ak ku ko bëgg ak ku ko yéene jàmm mm-hmm. yàlla na la suñ borom defal jàmm mm-hmm. waali nee bu ëpp day la ndëmal kon nanu bàyyi la ndëmal <laughs> waaw yàlla baax na li ci kanam yàlla ko suñu borom gunge mat ko ndey mat ko baay mat ko mag mat ko estaf dénk nañ ko yàlla ñu ngi ko koy yalwaat di mm-hmm. ko saraxu sénégalais yi ak làmmiñ bu am barke te bañ a am tooke lépp lu ko waay ñaanal yàlla na ko daal yàlla na ko yàlla muccal ci làmmiñ bu am tooke. ci barke yonent mais yaay woy wi boo déggee ñu ne la euh, euh, da ne bu wax baree rek yàq waaye woy wi dafa dafa nekk loo xamante ni nii sénégalais yi ñëpp ci gis seen bopp du moom way wi moom rek moomu ko nit ñi dañ cee gis seen bopp moo xam ku mu dal moo xam ku mu dalul. moo xam yow mi toog dëgg la. dama la ni. Mhm. li waali yor di ko yëg. man moom laa yor di ko yëg moom nga yor di ko yëg amoo sidit utal paaka dagg ba xam luy génn man ma dagg ma xool luy génn kii di ñu caméra dagg xool luy génn ka seetaan di dagg di xool luy génn wax na lépp daf ko tënkee bu sidit daggee deret tuuru ku ne nag da ngay xool sa sidit xool sa deret xool li ngay yëg nga jàppee ko sa morom nga xam ne wax ju xajul ci paan kenn du ko yëpp ci siwoo te mbub moo xool ne jotu la bu ko solal sa morom lii rek la yàlla yàlla def jàmm yàlla may ñu ndam ci kàttanu yàlla ak mbaaxu yeneen tamit. looy tàggatoo ak internet Sénégal 7 yi. <laughs> na ma ñëpp ñaanal la 23 mars. Euh, man maay tëj ñu xëy woo voté ji man Aïda Saliou musuma am date bu tombeek lii mu tombeel waaye ba ma daan sargal sama mag ji it nag Kiné Diouf jaaga ndax doomam ma ma woon Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sama yaay ja amital yaayu Alioune Badara yaayu Aïda Saliou ne woon ma nag nit bu la teralee danga koy teral nit boo ko teralee amoo loo ko joxit wane ko ba àdduna sépp xam ne kii defal na la lu baax waaye ki ne Juuf sama mag ja ma daan ko sargal ca ba mu dundee weer wii nag dellu siwaat mu tombeek tey weeru koor kon xëy na suñu borom am na lu mu ca nam hmm. mu tombeek moom duma ko bàyyi de dama koy rendre hommage ak sama yaay ja amital at mii damaa feebar damaa tuuti damaa jeex damaa xalaat li may yëg maa ko yëgal sama bopp ci sama xol parce que dama am ñaari manquant yu doy waar waay yu toll woon ci man fu sori ma xam ko lool dund ko lool wéet lool ñooñu laay rendre hommage sama jour anniversaire nag la tombeel ma jëlaat anniversaire beeg lépp tëmbal ko ci rendre hommage boo ma leen rendre hommage di ñaanal ma ñëpp ñaanal ak joxe ay ndogu yóbbu ko ci daara yi ak jàkka yi di ñaanal ma ñëpp ñaanal la foo toog Aïda Saliou yàlla na gudd fan mhm. yàlla na wér saa yu xëyee bëggub Serigne Saliou moom yàlla nay gën a yokk man sëriñ bi rek laa bëgg. tàggatoo ak waa Sénégal d' abord. waa Sénégal set ak waa Sénégal set. waa Sénégal set macha allah. jërëjëf mbokki internet Sénégal set lii nag lañ leen indiloon tey ak man daba ceena ak sama yaay soxna ay Saliou lii lañ loon indiloon jërëjëf beneen numéro ci Sénégal set merci beaucoup.